jërë ngeen jëf kuy wax ba am loo wax nag war nga caa wax Papa Ndil ma observateur ñu wax ca la ca nekk te ñu wax ñu ci ñun seen nas ndaw nga fa suñu naan Fatou Camara Gambie la dëkk ndaw soosee journaliste la mooy def ca télévision gambienne ba émission bu ñu naan faatu Show yéeni kaay bi nañu jamono ji moo ngi ciy jafe-jafe ndax njiit réewu Gambie di Yaya Jammeh moo ko jël dugal ko ca kaso ba dafa njoxtu ne moom Fatou Camara moomee dafay liggéey ak waa TFM yéeni kaay bi nañu lii la ko Yaya Jammeh mere ba tax na moom Fatou kamara ak njabootam mu di yaayam nekk ci Atlanta jamono ji ci jaaxle la nekk xale bu jigéen bi nag fukki fan ak juróom ci weeru septembre ba léegi journal bi nañu ma ca kaso ba Yaya Jammeh moom xale bu jigéen bi daf ko bëgg a yàgg na ak moom liggéey na ci communication liggéey ci télé bu Gambie def fa émission boo xam ne ñépp a koy coow mu bëgg def loolee fii ci TFM loolee la Yaya Jammeh mënta supporter niñ koy waxee ci anglais Mr President I ask you solemnly to release these girls xam yi électricité yeeg ñàkkum ndox mi fi woon ak enquête bi ñu doon def observateur xëy ci dikkeen nii mu di lan lépp gisandoo la def nañu rapport ba yéen kaay bi ñu rapport boobee am nañ njuuj njaaju ca feeñ yoo xam ne SDE mucc ci lan moo ci taxal ki nga xam ne moom moo di SDE journal bi ñu bokk na ci loolee ñu naan euh, ak it ñàkk joint yi nga xamante ne mooy joint isolant bokk na ci loo xam ne mën nañ ko toppee SONES SDE nag lañ ko mën a toppee mooy dafa xam loolee ba noppi te defu ci yenn réserve maanaam ci gàttal yëgluwu ci te it jëlu ci ay matuwaay ay matuwaay ñu ko jël ñoo ngi gis résultat su lay xëy ñu xamal ne Khoudia Mbaye di jëwriñ gi nga xam ne moom lañ dénk wàllu habitat nga xam le ne ne lu toll ci fukki junni logement sociaux yi ñu doon wax juróom-ñetti junni yemb na Khoudia Mbaye moo ko wax wax ji mi ngi ci xët mu njëkku euh, journal bi nga xam ne moo di la Soleil Sud euh, Le Quotidien moom ñu dikkal ñun ci Macky Sall mi def fi jéego 40 milliards la yëkkati joxe ko ndéwénal du xaalis bu muy jël di joxe de yéen a kaay bi dañu ci boppam moom la wàññee noonu dugal na ci kon ñeent fukki milliards ci suñu koppar mu di li neex li ma neex dëgg tey jii mi ngi ci Sud Quotidien Pape indilal téléspectateurs yi yéenekaay bi ñu xool ni journal bi titré marche bi nga xam ne waa parti démocratique sénégalais ak seeni ñooñ bëgg nañu ko def nii la dikkee mu di lan le euh, parti démocratique sénégalais l'opposition en euh, roue libre euh, roue libre ma nga ci lam ci bëgg wax daal ci gàttal mooy ñooñee fara ci kujje gi tey danañ amal ab doxum ñaxtu te doxum ñaxtu boobee gars yi autorisé nañu ko populaire nañu muy parti démocratique sénégalais di seeni àndandoo dañuy wàcc ci mbedd yi tey ji natt seen doole ca la ñuy xam ndax am nañu doole ci wàll politique wala ndax amuñu ko ñi am doole di nguur gi la Sénégal nañu jël nañu ay matuwaay ba wane seen doole ndax lu toll ci ñetti téeméeri policier la ñu fas yéene encadré marche gars yi yamuñu ci dragon ku ko xamul dégg nga ko mooy camion boobee nga xamante ne day sotti ndox mu tàng journal bi nañu dana gunge waa PDS ak euh, kujje gi nga ci seen doxum ñaxtu ba diggante Rebeuss ak place de l'indépendance ngi koy surveiller surveillance boo xam ne amul fenn la ñuy bañ moo di fitna juddu ca doxum ñaxtu boobee Walf Fadjri nañu Abdoulaye Baldé dana bokk baax waa gis euh, bokk gis-gis danañ ca bokk waaye kii di Idrissa Seck moom nee na du doxal Karim Wade du ko def ñeneen ñoo xam ne danañ ca bokk moo di njabootu Serigne Saliou gi wal fajër nañu li dox seen digg ak waa Dangote dossier baag leen ca metti dañ ko fas wasaare ci mbedd mi ngir ñu xam carrément li nga xamante ne moom la yuuxu dañ leen a bëgg a jaay doole noone la ko journal bi gisee libération nañu sax mbirum Dangote ak njabootu Serigne ne ko fukki fan ak ñaar ci weeru février atum la woon mu di ab leetar leetar ba dafay firndeel aveu di loo xamante ne ji def nañu ko te xam nañ ni teguñu ko ci yoon muy Aliko Dangote ak ñi nga xam ne ñoo di aw ñoñam nee ñi Serigne Saliou yi seen njiit mu di seen Cheikh Saliou yéen bi di enquête nañu moom li coow li bari bari bari fa nit ñi gisee ak moom fa ma gisee bokkul contre courant lay demee ci gàttal coowal suufus Dangote si moom bëggul suuf euh, Sénégal ak Côte d'Ivoire ñi ngi koy coow ba léegi stade yéen a kaay xëy ci dellu si waat nañu regroupement bi door na démb ca France fukki gaynde ak ñeent ñoom ñoo teew euh, mbiru série yi yéen bi nañu ca lay doole tous les sports moom ni mu ko baaxoo talaata bu nekk ak le débat du mardi la muy laaj mooy ndax kele bi nekkul ci milieu bi journal bi boole ko ak portrait ba Mohamed Diame ak ki nga xam ne moo di Idrissa Gana Gueye waa sport ñëw ci kii tàggat gaynde yi Alain Giresse la na lu muy ñaawlu na ci li Sénégal amul a taxawoo bari na yoo xam ko préparation compétition gayndey Sénégal yi ñu dellu ci observateur Pape wax loo xamante ne jii moom rek la ñu waroon wax ba ni ñu fiy jugee mu di lan tabaski geeg xari tabaski observateur nañu tabaski gi ñëw na de ca xarum tabaski seenu njëg kenn kenn kenn mënu ko laal waaye yàlla baax na jërëjëf.